SYNAS muy syndicat national des artisans du Sénégal maanaam am mbooloo moo xamante nii dañuy ëmb ay artisan jóg di dugg ci mbirum syndicat ngir jéem a saafara suñuy jafe-jafe ci biir loolu ñu convoqué woon lenn ci membre bureau bi pour ñu yeggee ko presse bi balaa ñuy dem congrès le 28 janvier léegi membre bureau ñu fi jot nekk commencé ko ci man maa ngi tudd Mor Sow secrétaire général Aline Badara EGAS euh, madame secrétaire administrative, Abdou Sam secrétaire chargé des revendications Badjan Diosibé secrétaire chargé des femmes travailleuses euh, Madame Thioro secrétaire chargée de l'organisation Monsieur Abdoulaye Wade commissaire au compte, Monsieur le doyen chargé des relations avec les partenaires Issa Lai Diop chargé de la communication et délégué régional de la région de Dakar. Koumando Fendou fait partie des, vice des secrétaires généraux adjoints, Amidou notre secrétaire permanent, ak euh, yeneen gan yi nga xam ne ñoom tamit bureau bi lañ bokk Bonsoir mesdames et messieurs de la presse. Je me présente, je m'appelle Aliou Badara Touré. Je suis le secrétaire chargé de l'administration. Donc je m'en vais vous lire le texte de notre communiqué sera suivi sa traduction par le secrétaire général, M. Morson. Les artisans sont laissés à eux-mêmes. En cas de maladie, ils sont obligés de se débrouiller seuls avec leur famille. Quand l'heure de la retraite aura sonné, tout rêve de pension devient chimérique. C'est ainsi que les artisans ont décidé de se lever comme un seul homme pour prendre à bras le corps leurs problèmes avec la création du syndicat national des artisans du Sénégal, sous le sigle SINAS. Il y va aussi de l'avenir de leur secteur. Le gouvernement a eu la bonne idée de confectionner des uniformes scolaires pour l'ensemble des élèves du pays. Les artisans sénégalais ont été choisis pour la mise en œuvre de ce programme. La première phase exécuté, nous invitons les autorités à dégager les fonds pour la deuxième phase avant l'arrivée des différentes fêtes religieuses que sont la Corité et la Tabaski qui risquent de prendre l'essentiel du temps des tailleurs. Il en est de même pour les zones de recasement dédiées aux mécaniciens. Dans cette quête de prendre en charge les intérêts matériels et moraux des artisans, choix ne pouvait être plus judicieux que celui porté sur la CNTS, centrale sans cesse plébiscitée à l'occasion de chaque élection de représentativité syndicale. Mesdames et messieurs, le monde d'aujourd'hui est à l'ère des grands ensembles. C'est pourquoi nous invitons tous les assidents du Sénégal, sans exception, à rejoindre le SINAS pour une lutte commune et plus efficace. Tout en étant à votre entière disposition,

dafa amul lu ko jëmmal taxawal ko pour que solo boobu mën a feeñ pour solo boobu mën a feeñ nag moo tax artisan yi ñun ñëpp parce que dañ ne euh, xëy na suñu yamoon ci rek secteur bu ne am na am na am na am na ñu ko fa taxawal mais suñu nee secteur de l'artisanat lañ bëgg taxawal ba taxawal SYNAS c'est pour que gën a dooleel artisanat ci Sénégal ku ne xam na ni bépp secteur boo dem ci Sénégal ci wàllu artisanat kenn mënu leen ci ci Afrique de l'Ouest mais loolu nag foog ñu valoriser ko foog ñu valoriser ko pour ñu mën ko valoriser ci yu mel nii lañ mën a sukkandiku taxawal syndicat taxaw fa ñu war a taxaw di wax li ñu wax fa ñu ko war a waxee pour que loolu mën a taxaw bu ëllëgee ñu ngi jërëm ñëpp di sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum man maa ngi leen nuyu ak yéen waa presse bi. Ah, di leen gërëm di leen sant ndax yéen moom il faut que ko fu tok rek ñu war amal ci yeen yeen sant nak yeen ñi nekk ci presse bi da ngeen bokk si secteur de l'artisanat artisanat les caméramans et les euh, et les euh, photographes yéen da ngeen bokk si secteur bi yeen da ngeen war a affilé wu fi tay ci SYNAS ko bon que ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ci wo di leen ci talal loxo wa di wax nak euh, bi secrétaire général waxee ba paré secrétaire administratif wax te revendication wax man su may wax si wàllu jigéen ñi laay wax surtout jigéen ñi nga xam ne da nekk si wàllu couture ndax jigéen ñi nekk si wàllu couture ñu leen di woo ci li nga xam ne que moom mooy euh, congrès bi nga xam ne dañ si jëm te le 28 nga xam ne congrès boo xam ne la ah ñun de te CNTS te dañ am si moom yaakaar te dañu tuddee nag secteur de l' informel wante ko ñun suñu biir ñu bari te nekkatuñ ci c'est formel nous bari formalisé wu nous ñu ngi ci Nous di les femmes transformatrices la femme transformatrice formation secteur secteur de l'artisanat nga jaare ko ci formation professionnelle ay 3FPT c'est ministère mais quand dañ leen di former jox ay des am problème qui maanaam du duñu am problème équipement te nu am foo xam ne nañ ko mën a commercialiser te duñu ko mun a am fra duñu leen topp ba nu mun a am seen fra pour war ko mun a jaay à ces grandes surfaces ndax jigéen ñooñu ñu leen di woo fii tey si ko SYNAS ndax synthèse ba nu duggee si ñoom rek lu nu njëkk a defal te defal nañu ko formation boo xam ne naka na ne ay génnee si secteur de l'informel ak ñëw si secteur ko secteur euh, ko formel war nañu waxoon nañu ne ñi nga xam ne ak ñoom ñooy ay bijoutier yi dinañ jéem a fexe ba or sabadol te TVA bi ak ñu wàcc ko ñu jox leen mais secteur kenn mënu ko defar maa ni di ko jox administrateur te doo ci dugal ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi te bon loolu ñu ngi li tax ñu taxawal tey ji ko pour xeexal ñooñu tey ñu war si ko mun a ñëw ñu ànd ak ñoom ci li nga xam ne mooy or bi ñu mun si di ci jàpp di si liggéey te di ko jël di ko delloowaat ba artisan yi mun a gis seen bopp ko di wax daal ku ñu ngi woo ñëpp man Adja Diose di bàjjanu artisan yi ñu ngi woo képp koo xam ne artisan nga ñëw fii tey si Senas ñu ànd ak ku yéen si le bu euh, janvier te CNTS ko boot nu ñu ànd ak ñoom revendiquer li nga xam ne secteur bi li si metti bari na wante ne secteur bu ñëwee mu secteur de l'artisanat te dañuy ëpp ba fourne bi dinañ ko ëpp si côté bu nekk moo tax ñu taxawal syndicat bi

salaamaaleykum man maa ngi tuddu Abdoul Sam di secrétaire national chargé de revendication ci SYNAS di rafetlu aussi jotaay bi di rafet rafetlu bisu tey bi ndax bis la bu am solo ci secteur de l'artisanat li tax mu am solo mooy lu ñu doon xaar la parce que ñun aussi ay artisans lañ te yàgg nañu taxawal le secteur de l'artisanat damay wax ni amul lu ñu deful ci secteur bi li may wax nii nag damay jël témoin kii toog fii nga xam tey mooy bàjjan Adja Diosi nga xamante ni su ne artisanat rek moom rek jëmmal na secteur de l'artisanat su ñu wax organisation professionnelle amul secteur si secteur de l'artisanat amul métier bu amul organisation professionnelle du menuiserie du mécanique du tailleur bépp métier rek am na OPA mais ci biir loolu am nañ ay kuréel yu ñu lëkkale nga xam ne yàgg nañ ci di xeex yàgg nañ ci di revendiquer li nga xamante ni moom mooy jëmale kanam secteur bi. jël exemple rek lu mel ni fonds force Covid 19 nga xamante ni secteur yëpp ci économie mu laal leen état bi dafa dégagé woon fonds pour di leen dimbali ngir lu ñu dëgërloo. même secteur de l' artisan kese ba tey jii nii nga xamante ni dem nañ ba def bilan ba rapport cour des comptes génn wax na lekk nañ xaalis bi secteur de l' artisanat moom seen xaalis jotaguñ ko ba suñu jëm yàlla tey te amul kenn koo mën a topp wax la xaalis bi fii la tagee amul. yàgg nañ ci xeex point de presse bu dul point de presse bu jinne yéen journaliste yi mën ngeen ñu seede ndax bëgguñu def parce que lii lu c'est une première mu ngi door a am fii ci Sénégal syndicat ba nga xamante ni dafay taxawal artisans yi mu ngi door a am lu ne nag am na fi mais nag bañ la dañ donte dañ koy def duñ ko defee lu ñuy précipité dañuy ànd ak ñu war àndal dañuy ànd ak ñaa xamante ni suñu ànd ñoom dañuy def démarche bu responsable